bu baax di la fay jërëjëf. di euh, macha allah jërëjëf Serigne Gora Xuma moom kenn la ci ñi jiite transporteurs yi mooy syndicalistes yi surtout ah, fii ci réew bu Sénégal euh, Serigne bi bi nga déggee ne tey jii nii El Malick am na ay décisions yu mu jël yóbbu ay bus yoo xam ne yu dem dikk la ca fi nga xam te mooy boo maraîcher euh, lan mooy ci sa jàngat ak noo ko yëgee yow itam. waaw moom de am na ci cëram. parce la république la. Mhm. homme politique la. Mhm. ndax nekkoon na def benn déclaration wax ne paas yi kenn du ko yokk. Mhm. dana indi police pour police surveiller oto yi kenn du ko yokk paas am ndax oto bi nga xamante ni dafa dafa na appliqué tarif normal mhm. bu jógee Dakar dem Ndar yëpp tarif normal daa war a toog Ndar ba amaat yeneen client pour mën a yem foofu tarif normal tamit pour ñëwaat Ndakaaru mhm. mais du yëpp tarif normal dem Ndar dawal xoto oto ñëw Dakar lu mënu nekk mhm. manque ka gagner boobu nag vide boobu moom lañ doon fayee ko la ci am nag da xam ne suñu mbokk yi doon nekkati tamit ànduma ci mooy cent pour cent exemple fu ñu doon fayee quarante mille nga bëgg waa yi fay la quatre vingt mille euh, euh, quatre vingt mille loolu d'accord mhm. ndax lu mu dee dee dee bu fekkee donc client bi fay na dix mille. dem mhm. retour ba au moins mu tekki deux mille cinq cent. Mhm. pour fi début mais boo bëggee nag nag client bi di war a dem. demagut moo war a fay passe aller retour bi jaaruwul. mais client bi aussi bu ministre bi ne du passé lam na war a fay kon dafa mel ni ministre bi aussi daa bëgg a oto yëpp bu ñu demee buñ duñ dellusiwaat. ndax kenn du jënd fukk di jaay kon waxtaan amu ci selon yow. dañ ci war a am. parce que hmm. tarification boo demee mag. Hmm. bu mag a jotee transport day am problème. fii ci Sénégal marché boo dem si nekk nii tarif yëpp changé na. Hmm. tarif yëpp a changé fépp puisque lu ñëpp bëgg la mooy demee noonu man daal li ma àndul mooy exagéré mais àndu ma aussi ñu wax di ci des ministre bi. bu amee fit wu toll nii ak dara ji bi toll nii ak maa xamu toll nii taxaw na tarif kenn ko yokk te muy tarif kenn wul kaa yokk. waaye personne kenn ku ko wàññi. Hmm. kon bu paas tabaski paasee tamit client yooyu nga xam ne léegi dañuy damm tari tamit xanaa ne war a yóbbu ci yoon ba ministre war naa def déclaration wax ak ngay wàññi tarif ku wàññi tarif dina yóbbu ci yoon. Hmm. ku yokk tarif dañoo yóbbu ci yoon ku wàññi tarif dañoo war a yóbbu ci yoon man bu ko defee dinaa bi lay jeex. te hmm. ñun ñi dawal oto yi ñoo war a gën a indi yërmande nag. te yërmande ji jëmuñ ko kenn ku dul suñu mbokk li ëpp doole ci loolu lépp man li ma gën a gisoo du xaalis. Mhm. ñu fexe ba jël ay matuwaay ci wàllu code de la route. Mhm. sàmm teg code ba ñu fexe ba def tabaski zéro accident. Mhm. jëlee client yi fi ñu war a jëlee yóbbu leen fi ñu a yóbbu ci jàmm ak salaam man moom a gënal fuuf tare bu ñu yokk baax tare bu ñu wàññi ko. ministre bi a jëkk a wax mooy ci loolu. mais tarif kenn du bu doon fukk la kenn du ko kenn du yokk fukk ak benn kenn du juróom-ñeent. loolu moom mën na kaa wax parce que ministre la république kon ku ko sikk ku ko sikk xamoo lan mooy république et que mooy langage bi war a. mooy li mu def war na ko def moom la ministre war na ko def fi def d' accord. saar yi mu génne. Hmm. Sénégal hmm. eh, def transport interurbain ak le service public muy Dakar Dem Dikk Sénégal Dem Dikk. wax ci jamono santaane ñu bari dañ ne loolu jaru ko. Hmm. kon dem ba am seen licence am droit. indi fi Sénégal dem dikk indi fi Afrique dem dikk ñu xool ba loola am loola nag bu amuloon tamit ba léegi ministre bi am na droit population bi leneen lañ nekk lañ bëgg mu nekk mu def ko. Mhm. dama bëgg nit ñi di xool kii wax kan la ndax El Malick Ndiaye daaw ba la ndax El Malick Ndiaye bu ren bi la. Mhm. lim doon ren moo tax muy def li muy def ren. amul droit jëf ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp. d' accord ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp. di hmm. ko bis yooyu alalu Sénégal lañ ko jëndee. Hmm. alalu Sénégal lañ ko jëndee kon am na droit transporter Sénégal. d'accord traditionnel ñoo ko moom ñoo yore trans public am doole nag bu taxay ngay def lu la neex tamit gënut gënut d'accord Dakar mu dikk la mhm. am na droit léegi def transport urbain am na droit def transport interurbain mhm. loolu moom man mu duma ci wax ñu ne directeur général ko moom ma gënal foofu ñu def na ko directeur général Dakar mu dikk am na droit ay départ am mu renforcer ko passagers yi fekk leen fa ñuy départ dem Sénégal mu dikk ñu fekk leen ko mais boo marché fa jëlee benn client. te ministre mm. bi loolu mënoon na kaa santaane te bañ kaa def. daal bu ko defoon man du ma ci wax mais ministre bi ministre bi amul droit ci loola man jàpp naa amul droit ci loola am na droit ne santaane ay solution yu defal ko loolu mais du moom moo koy def. ok dégg nañ la ja jaajëf président Gora Khouma. jërëjëf.